asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi ñu nekk waaye liggéey ñu jiital ci nuyo bi ak li nga xam ne moo ñu fi indi lépp rek tàmbalee ci sëñ Rahim Diop mi nga xam ne sëñ Abdourahim yi suñu kilifa ñun ñëpp ci njabootu sëñ Massamba Diop ñu ñëw tey nag fii ci Daaru jóob euh, ci liggéey boo xam dañ ko fi doon liggéey muy ci néegu yàlla bi ñuy liggéey ñu ñëw fi nag bëgg cee waxtaan ak itam. li nga xam ne mooy Daaru Jóob cosaan la fa mu tàmbalee ba fii mu nekk jamono bii eh, ñu bëgg cee waxtaan ak mag ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yu tedd yi ne ci dëkk bi ak sët ma Massamba Diop yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Daaru jóob nga xam ne ñoom fi lañuy defe lépp ba ak si ci tey jii ni man nag nañ fi dajee kon ci liggéey bi ñu fi doon liggéey mu jegg fii mu nekk di ci cëppaandaw ji di bëgg a yegg ñu àndan koog mbokki taalibe yeeg rekk ba ba ñu agsi fii tey kon xam naa loolu mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy tàmbalee ñu ànd ko ak Argentine TV moom itam ñu defal ñu ci ay reportage xoolal ñu dëkk bi ak li nga xam ne moo fi nekk. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen julli maa ngi nuyu sëriñ si fi nekk. di suñuy kalifa ma loolu amu mag nag ñoo leen mag ay kilifa suñuy kilifa lañu fi ne leen fi ne leen seen baay suñu bàyyi bi muy ñëw fii ne ne ma sàmba ko fi yebal waaw bi mu ko fi yebalee nee na sëñ ma sàmba dane ko sëñ Tuubaa da ko ne nga dem fa na nga dem fa bata Cerno boo demee na nga ko wutal na nga dencal mu dencal la mu wutal la fa tool ngeen dend ngeen dendandooy tool léegi bi nee bi ma ñëwee nee ba mu sëñ ma sàmb nee ba mu ko waxee loolee nee nga ma ne ah man de dana dencal cerma waaye man du ma denc doomi cerma léegi nag man dinaa ko dencal da da di fa sama ñi bokk ak sama ndey ak baay yebal leen bi muy soxna fa daam Jóob ak soxna Jóob ak fayti bintu ne muy leen bu dem bu ñu demee nekk leen yéen laa booleeg Cerno daal di ko awleeg ñam koy ànd ñamay àndal ñu ñëw mu daal di fa maam Cerno soxna fa daam dari eh, ne ne ñu soxna soxna Diop ndey soxna Diop ak soxna Diop ak Fatou nag ñoom ñu nekk di ko dimbali booba loolu loolu tax mu boole na moom xam naa moom waaye du jëfu moom sax ci waaye nag mu moom ñu ànd fi fële ñu nekk ñoom ñëpp nga kenn ku ne doo dem dem fa nga demoon la nga ko léegi nag ba ko ba ko mu saa bàyyi nag mu ne ko yow demal Darou Diop boo demee. sëñ Mat Jóob bon la sëñ maam Ceerno nga leen leen sëñ Mat Jóob jox la mu jox sëñ Mat Jóob nga waral leen ko mu day dikk mais bi mu dikkee ñu daal di toog moom mu sañ ci këram fële fële sañ ci këram boobu ci ci biir dëkk boobu dara néew fi moom rek a fi nekk léegi mu ko defee mu dikk muy bi muy bi muy gor ne soxla ma ne kii yéeg ma ci kii yéeg ma ci xar wi xaw ma ko waaye moom de am na am na doole de waaw ma ba mu ñëw ba mu ñëw ko góor ku ñu wax bay am na diir daal mu mel ni bu doon kuy julli ba daal moom daal di ne ñorog ñoom delluwaat ca kaw toog ma ne ma di leen si ma di ko seetaan noonu moom ba léegi loolu nag léegi de sëñ Mat Jóob mii nag bi mu ko fi yewale ne moom mosu cee doo daa ko booleeg soxna am soxna maam maam day soxna soxna jaara la ko boole mooy mu nga xam ne doon toggal waaw fii eh, am na eh, am na soxna Aliou Mbacke defe naa fii lañ ne garab bii fii la saa ba bàyyi ne fii la garab ajuma moom moom soxna soxna Aliou Mbacke Mbacke may neen may neen te fii ne ajuma nekk na ko fi boobu diir daal waaye nag ba mu. moo nag boo ko nee man mel man mel saa bàyyi nee na mel man maa fi nekk waaye kër kër kër dëkk ba mu nga fële ñuy wax ba waaw boobu ne waaye waaye waaye fii moom moom moom mel moom dong nga fi nekkan waaw ak soxna Ami Mbakke képp waaw daanaka ne ah mu njëkk a nekk mu ñu ko ca kanam nga xam ne booy booy jub si fii ne fa nga jaar waaw doo ko yegg si fii waaw loolu moom léegi itam xam naa sëñ ma jub moom bi mu fi diir mu nekk bi nga xam ne ñuy bi ba nga xay ne àgg na ci war a toll ci bën ñu leen duñu fekki ab ndox di su fekkee ndox na dafa ndox fekk moo ko indi fii moom itam ñu lay mu ni nañ daal di toxal foofu bi ñu lay koy toxal dëkk bi fii ci Daaru Jóob ki tey mu def ko jégeen jógeen a dëkk boobee la buñ buñ ko buñ buñ fa jëkkee duñu am duñu am suuf maanaam dëkk bii nga xam ne mooy Daaru Jóob yii nu nekkee nii waaw Daaru Jóob gii sëñ Mat Jóob dafa dafa fekk ñu defar ko mu nekk dafay teel a ñëw déedéet bi mu fi ñëw bi fi ñëw sëñ Mat Jóob sëñ Masamba sëñ Tuubaa ko fi yebal moo moo ko moo ko wàccee rek mu waree ko sëñ Masamba mu dem këram mu dem Daaru Salaam doogu faa jógee ñëw fii ba ba fa jógee fee lañ fee nekk ca gent boobu lañ lañ sañ si fee nekkoon. boobu sëñ Tuba mi ngi si. Ah, waaw waaw sëñ man waaw ah, waaw boobu sëñ Tuba ngi si man fii laa maam Thierno fi ma ba man fii laa juddoo loolu jóg fii laa juddoo waaw. ma ah ah te fi mu ne sama juróom-ñett fukki at ne. sëñ bi Samba mas na fee ñëw. sama dara wax sama dëkk ba dee ma nee waaye ma ca booba fu ñuy wax yoon bu Mbàkke Kajoor moo foofa la ñu daa jaar bu ñu bu maanaam ceeb di dem ak fo ak Darou Moussi ak foofu la ñuy jaaree. fee gent tëgg ba tool yi tëgg yëpp la fa la yenoo jaar bu fa tolloo nag ci rajo yooyee fa nekkan nag day joxoñ ni fee day mooy sunu saa dëkk bi ma ma am cee na jox. waaye moom mos sa taxaw ci biir dëkk bi waaw maam Thierno mos fee taxaw ah fii kay di ko sëñ Mati Diop bi mu fi nee moom bu ne boo buddee ko Touba bu ne fekk na ko fii ci Darou Diop fii ndax sëñ sëñ Fallou mas naa julli fajar fii fajar fajar fajar ba ba ba mu fi dama bëgg nga bayal ma yoon woo xëy si damay teggi dër du ma jaar si biir dër ndax bu ma jaaree si biir dër du ma a teggi du mën a bañ a jàkk suñ mu daaw bala wutal ma yoon woo xëy si daal day dama cay jaar ba yëg si du ma ko jaar mu daal di dañoo xëy rek fab bopp yi ak kii wuti wuti wuti wuti jam xaal boobu ñuy wax jam ma nga wuti nag fu ñuy wax xewar xewar foofa la foofa lay foofa booba foofa lay foofa lay yoonoo jeexe ba ñu ba xewar foofa la jeexe yoonoo xotali foofa yoonu Tuubaa ba wa jëm xewar yoon wa jëm xewar waaw foofa la foofa la waaw nga xam bu demee moom dal na dem yoonu Tuubaa ba si nga xam foofa la sëñ Fallu jaare nag ba ñëwaat ci Daaru Jóob bi bi mu dikkee fekk na sëñ Mansuur génn julli fajar bay génn tasanteeg sëñ bi teer mu ne ko sëñ bi mu ne ko eh, Modou Modou ndax Modou ngeen mu ne ko noo koy waaj de waaw waaw mu ko noo waaj de mu ko kon nan dem ci biir julli mu da di ànd ak moom dem ci biir julli ba salmal ba mu ne ko waaw dañuy dem ci kër gi dañuy damay damay jàll di def maanaam mu ne ko loola ca neex waaw ba dem ñaari daal lay boole yoo xam ne bokkuñu sëñ Modou Diop yaari daal la boole yaari daal waaw waaye dañ ko ko tegal ci dañ ko tegal moo ko bañ ko ba ko sumee dañ ko teg ci wata waaye xamul daal daal daal nu jox moo coon mañ yaari yaari daal daal la yoo xam ne bokkul waaw waaye ñu doog wuti nag foofu daal moo fi dam do ñoo ñoo tamit mu demee mu ni Ali Gueye nanu nanu nanu nanu nanu yi fekk dër mu waaye daanaka jiitu jiitu ñu ko fa lu bari mu daal di fa booba fasu saytu yóbbu moom doo dëkk bépp moom bi moo fi moo fi aw fos ba ni waaye sëñ see xaw ne ko ah muudu jiite nga ma nar nga maa jiitu ci sama gan gi de bool yi wàcc lépp mu ngi ci waaw noonu noonu la def waaw nga nga xam nag mbirum sëñ Mat Jóob nag moom waaw bu jaadoo rek ah sëñ Mat Jóob moo doon taw sëñ ma sàmba moo moo fii waaye waaw moo doon ab moo doon taw ba mu ko defee waaw waaw asalaamaaleykum yéen mbokk yi taalibe bi ak waa kër sëñ Massamba Diop Sam waxtaanu sëñ Massamba Diop bi man li ma ci xam daanaka lu ci bari koo xam ne nga judd mag ñi rek lay wax waaye loolu mag ñi wax da ngay nag lu ci bari mën nga koo jàpp te doo ko fàtte sama baay daana ma ci wax daana dégg ci bàyyi sëñ Diop mi itam di bàyyi bàyyi bàyyi sëñ Baara mi bàyyi sëñ Yàlla mi daanaa toog ci seen jotaay ci bari ñu ma koy wax ci ci histoire dëkk bi maam Mbaye Fall bi nga xam ne moom la fi sëñ Massamba yebaloon itam di bàyyi Thierno Fall it xam naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax sëñ Mat Jóob daal moom li nga xamee ni moom laa xam ci moom moom lu lu yaatu la loo xam ne mag ñi rek ma ko wax daana def bu tàlla wataamit ni bala bu sama baay ñoom duggee mu ne ko da am su ñëw dugg fii ci suñ kanam mu nekkee njëriñ ci sëñ Massamba Jóob ci sëñ Touba ne koy murit bañ ko ni sëñ ba wàcc na liggéey ay mag ñëw wax ko sëñ ba mag bi ne ko sëñ Masamba wàcc na sëñ Masamba wàcc na liggéey te muut ñi kat moo fa mag dégg naa ba mu ko nee daal di ñëwee mag ñi dikk ne ko ah Masamba mi bu nee foofa foofa mbooloo mu bari na te lum sol sax day daw ko fàggandikul boppam los ko Masamba jox rek da mu joxe ko bu dee bëccëg du nelaw guddi du nelaw bëccëg di wuyu ndigalu sëñ bi rek. ci loolu nekkoon dégg naa sëñ bi ak kaala la la xar ci rek jox jox ko tëyër mu waaye ko cay daggal tubay ak ko fox ya daggal ko ci koppati moo xam ne ni si fexe ba ñoo ko ba mu doon baxana ñu daggal ko ca kaala su ndaw loolu loolu la demee loolu la demee Dóoru Sàmm loolu ñëwee itam sëñ bi daal di loolu ñëwee Dóoru Sàmm it mbooloo mépp daal koy topp rek ndax barke bi nga xëy moo nekk ci sëñ a jóge ci moom barkeb sëñ Tuubaa moom fu mu nekk rek bu garab it ñu toog toog fa te duñu fa jóg loolu moom kon yàgg na koo dégg ci sëñ Tuubaa waaye bi nga xam ne nekk na Daaru Samb mbooloo mi topp ko tam daal tëli bi topp ko lu war lu war ci lu ñu defal ko ko ndax loolu bu waxee lépp day gudd ba am na yére yoo xam ne kooka ndar la ko jële ba ko gisee jataay ba nam mel rek ak ni mbooloo mi mel ak ni ni yëf yi toll ak yére yi mu sol ni mu xaw a kiyee daa daal di dem ndar rek télé bi yu mag yi dëkk Ndar daal di def ci saxaar yi wàcce ko Kemer daal di luye ak gëleem safte yaari walis wala yetti walis yi walis ay sër la yi ay mbaxana ak i dàll loolu la ko def ba yetti walis yëpp fees bi mu daal di ko jox sëñ Masamba ko solee rek nag yéeme mu ne balaa xaree ma defati noonu ndax booba daal mooy wàccukaay bu mag bi mu ñëw Daaru Sam Daaru Jub gii nag nga xëy ñëpp topp na ko nag mu ñëw Daaru Sam te ñëw Daaru Jub fi ñëw sëñ Touba moo ko sëñ Samba Diop moo ko joxoon sëñ Touba suñ Touba moo ko joxoon ma Massamba Diop ñu ko demoon fa wetu Thierno ndox fii ngay bàyyi xat na sa mbooloo mi bari na te loo luñ la jox nga jox ma ko yaag Thierno yéen a yem kon ginnaaw da nga yéen a yem te yéen a nekkoon fi man damaa bëgg ngeen gën a sasuloo ci man ndax seen këri àjjana ñoo jàkkaarloo loolu ci sëñ Modou Mokhtar mi wax na ma ko moom sëñ Cheikh Awa Balla dama xam sa boo gisee moom a gën a sa maam ak sa maam seen këri àjjana yaa jàkkaarloo te ñoom te ñoom fu ñu dëkk fa la nii dëkk kon yow maag sa kër sa sa sa ak sa kër ñooy jàkkaarloo bu ci dinaa ko doom joxee jox na ko kaamil sëñ ma Samba daal di dem sëñ ma sëñ sëñ sëñ ma Diop daal di dem Njaarim di murtu ba loolu dal ko mu ñëw Njaarim euh, Dëru gi nag Dëru Diop gi nag bi ñu koy sanc fee ca gent ba lañ njëkk a sanc bu fi sëñ ma Samba njaar Ndiar ne feedal la sama taalibe yi bay waaye luñ bay buñ ko bojjee gële wi saf ko yóbbu ko Njaarim fii moo gën a jege Njaarim Dëru Samb fii ay ñeent fukki kilomètre rek nga àgg njëriñ ñu koy def ba yàgg nag sëñ bi ñëw ñëw fay ca gent ba sanc ko bay Cerno Fall bii moom nekk fii fi daara ci ak tël bi yi mu ko boole ñuy bay sàq yi bu ko defee buñ ko bojjee yóbbu ko Daaru Sam yóbbu ko yóbbu ko njëriñ mosuñoo bay di ci lekk luñ bay rek yóbbu ko Daaru yóbbu ko njëriñ mu tëdd ba guddi moom sëñ Mat Jóob daal di ca gent ba gént sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg ndox muudu ci sot la gi boobu sëñ bi wàcc na liggéey bu mag bi wàcc na liggéey ne mu nga bu sotle gi ba ci xur wi gis ab dett mbir rek mu ni ca nii rek sotle gi fees mu daal di ñëw jox ko ko sëñ bi daal di jàpp ni ko foofa ndox mu baree nga fa ñu topp foofu nag jógee ca gent ba di ko gas di ko gas di ba teen bi bëgg a bënn dégg nga li si Thierno ñu ne kenn fekkee ab ndox di fa sanc ñu daal di ñëw sanc fii nag bi bi daata bënn daru jëm gii ñëpp jógee ca gent ba fii ay ndaa yu mag sax xam na fi yoo xam ne mi ngi woon fii ci jàkk ji dama xam jóge na fa am déet foofu lañ ko béré nga ba mu ñëw fii ndax boobu li ndox mu fi ay siyaan ay dégg rek ca la ñu doon bu nawetee root ci dégg yi bu loolu ñooy gas siyaan yi bu cooroon ñu gas ci siyaan yi siyaan yi cooroon yi nga moom taw rek ko fi ma jëlee bu tawee dégg yi daal di taa ñu demaat ci dégg yi daal moo doon séenum ndox bi teen bi bañ itam dëkk bi daal di fees del maam Thierno kañ leen lool di leen dëkk bi tund wii maa leen fi jëkk man ngeen fekk si waaye mënu ma woon a amub teen ndax daana wax waa Daaru lu ngeen lu lu ngeen lu ngeen sonn sonn de am ndox moom boole maakum ndox dana jafe lool da ngeen may ñàkk amum ndox wala ngeen amum ndox am ceerno wala ngeen ñàkk ma am amum ndox wala ma nekk fi ngeen bañ amum ndox ñu ne ko mbàkke nan mar rek mbàkke nan mar rek te nga nekk fi noonu ba du mu jógee la ko mu doo bala soo fii ba nëb teen ñu amum amum ndox ndax la ma waxoon waxi wàllu yi la suñ borom da ko téefal sëñ ma jóg bi mu nekkee fii àllarba yi moom ko ne xam na ko tàmbalee fii taatu kër gi daanaka ba settar na rek ba ca kaw ba ca kër debo foofu fépp seen àllarba la joon mor mor ko masaan kornamètre ak kilomètre lay guddi yaatu lëpp 600 mètres man ca ko gone ko la waaye lu ñu fi masaan bay lu bari bari bari dañ koy bojj ay saañu lañ daan bay saa dañ koy bojj sem si de Russie yooyu naari liban yi ñoo koy jël nit ku ñuul benn ko am wata daanaka ku lub sëriñ amut sim si liwaale ñooy ñëw ab takkusaan fekk mbojj nañu yendoo mbojj ba takkusaan ñuy saf rek nag di yóbbu Touba ab tëli mu fenn waaye sim si yi mën nañoo jaar fu ko daan saf di yóbbu Touba di saf di yóbbu Touba sëñ mat bu ñu jox ko gëlim ko rek ñu yóbbu ko jox ko sëñ Fallu mu ñu nañ ko rax ba jox ko Baay Cerno Fall Baay Cerno kër gu mag gi bi nga jàkkaarloo nag jumaa ji taqaloo moom mook laa yemal ndax bi ñuy gas soror bi bokkoon naa ca uh, ñuy bu mag bi kon xam nga ne kon yàgg na maa dem Touba a ànd ak sëñ Madiou sama bay 1957 di ca dem di fàttaliku sëñ Madiou daal ci loolu la nekkoon nekk ci nekk ci musta yemale ak sëñ Fallou lenn lenn lenn lenn lenn lenn lenn lenn lu ñu am tey bu subaa ma jox am na bis boo xam ne da dafay ñëw ni ko man kat sëñ bi damaa añu démb réeru ma biig te yow laa yaakaar ci sa añ mu daal di yemle ci ñu dem ci àll gi ñu ñu dem ci bay mbàkk jëm ñu ne ko dara nekku fi mu ne ah kon lu ñuy def nañ dem ci jigéen ñi kon liñ na toowoon ñu ne ah liñ na toowoon soq nañ ko de lu bu subaa dañ koy wal ci njël gi def ci añ def ci reer mooy waa jox leen ko ndax kooku añu démb añu tey ñortu añ tey nañ ko jox ndax moom la mu añee ñooy ko jox sottil ko soq ba ci yor-yor gi biñ daataa julli takkusaan rek yaari gëléem ñëw yu mag kër bay ma sayer Kébé ca wetu uh, rëmatu Kébé ñooñu ñëpp xam nañ li may wax Baye ma sayer Kébé ay doomam a fi. ak i sëtam ak i doomam yu bare ngi fi ak i sëtam mu daal di indi gëlëm yi ni saa baay nee na la yaari gëlëm yëpp ak i sëf ak i sëfam gëlëm gu ne day sam juróomi bërigo muy fukki bërigo mu ne kon nag genn gëlëm gi nañ ko dàq ko bu sëfam yóbbu ko ci jumaa yi jumaa di yóbbu genn gi ci jumaa yi Tuubaa ja genn gi daal di koy rax fii man booba juddoo guma wala booba kon mënuma koo fàttali ko waaye mag ñee ma ko wax ñu daal di rax genn gi fii jenn ku yor soxna ku ne lenn jël woon waaye ko yor soxna ku ne nga indi sa sa bool wala sa sa këll ñu nasal sa yetti àndaar ak jox la loo war a mat juróomi ki lay ndawal nga nga reere ndawal ak ak ak cere muy na ci kenn ku ne soq def ci reer bu kenn reer fii ci sama kër ak kenn ku ne reere këram ndax xiwalu Sëñ Tuubaa moo ñëw te yëf yi dégg naa ah. euh, li nga ci wax lépp lu am solo la waaw kon sëñ Modou Diop dafa mel ni moom dafa nekk koo xam ne dafa ëpp la ñu bari ci Sëñ Tuubaa ah bari ci ndax li mu leen ëppalee mooy sëñ Massamba Diop mi nga xam ni si ni ku ne xam ne digganteem ak sëñ Touba ak maam Thierno mm-hmm. Mm-hmm. liggéey bi nga xam ne moom la ñu ànd doon ko dox te bi ñu koy dox booba dara xewagul njébbal sax amagul woon mm-hmm. ñu ànd ba loolu muy loo xam ne ñëpp xam nañ ko ci àdduna si waaye sëñ ma Diop ak Baye Sëriñ ñi tey di way jur sëñ Baara ñoom ñoom itam ñu am loxo yaroo ci yi ku tedd ki ak sa waaw ku tedd gi yar leen jox leen lam leen war a def def leen lim war a def ci ñoom ba ñu fees nañ la feesee mhm. sëñ Masamba Diop wanee gannaaw mhm. mu ñëw teg ko fi mu taxaw liggéey boobu mhm. ànd googu mu digal li mu jóge woon sëñ Touba ak liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal sëñ Touba topp na ko ngërëm loolu mu dellu siwaat ànd ak sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou jël jumaay ji mu àndaat ak moom liggéeyaat ak moom liggéey boo xam ne moo gën a sax kawe liggéey ba doon liggéey loole liggéey boobu bi mu ko liggéeyee nag ba noppi ba jumaay ji taxaw nga xam ne def na ci jumaay ji lu nekk mm-hmm. ku ne xam nañu sëñ ma jomma sàmba li mu def ci jumaay ji mm-hmm. tubaab yi doon taxawu jumaay ji sax ñoom loolu xamoon nañ ko ba wax ko est-ce que ci naag ak am lenn loo xam ne mooy jëm ci liggéey jumaay ji sëñ ma Jóob euh, gi def ca loo xam ne si lu ca waaye def mu def ko ëpp wax ne sëñ ma Jóob mooy ki jëkk joxe ñetti yoon ñetti million ci yoonu murit ñu def ko ci jumaay ji mm-hmm. boobu million yóbbul kenn mënu ko am loolee liggéey boobu mu taxaw woon nga xam moom la doon taxawee ànd ko nag ba mu koy def mu ànd koon njabootu sëñ sàmba Diop gépp nag ndax bu fi sëñ Masamba Diop jógee rek sëñ ma Diop dafa ñëw daal di wuuf njaboot gi ñëpp déggal ko topp ko taalibe yi topp ci ñoom nga xam am ci kër sëñ Masamba boo ko xoolee rox sala boo xam ni bëri na fu mu amul ndax njabootam gépp déggoo nañu nekk benn ay eh, ay taalibeem nekk benn ñu ànd ak ñoom ñu liggéey liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la sëñ ma jóob liggéey mm-hmm. ànd ko rakkam yi fi nekkoon mm-hmm. ñoom sëñ Fallou Diop ñoom a ngi fi woon ak euh, sëñ baay sëñ ñoom ñii wax ni sëñ Mbacke Diallo ñoom ñu ngi fi woon sëñ Abdou Jamil mu fi woon ak sëñ Bassirou Diop ak sëñ Moutara ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk sëñ Abdou Samad ñoom ñëpp sëñ sàmba jóge na fi ñu nekk ci gannaaw. sëñ Mat Jóob moo boot ñëpp kay. nga xam fii la ñu nekk tey jii ñoom ñëpp mën nañoo wax ni njaboot googu fii la ñu nekkoon doon fi liggéeyee kenn ku nekk nekk nga fi ba sëñ Mat Jóob. sampal la kër sampal la kër kenn ku ne moo la sampal kër fii moo la sampal kër. kon liggéey boobu nga xam ne fii kenn ku ne rek moo la sampal kër. moo tax tey jii bu ñu ñëwee Daaru Jóob itam ñu wane liggéey boobu taxawaay boobu kon ñu ngi noddu waxtu yu jot nañu xaar ba noppi ndax loolu la sëñ Masamba santaane wax man sëñ Alaaji Diop moom Baye Sëri Diop maa bëgg a waxtaan tuuti ci liggéeyu jumaa ji ak dëkk bi dëkk bi maanaam noonu amul lu dul ay kilifa sëñ Masamba dong lañ yaakaar ak sëñ Muudu Masamba cosaan li nag lii gaa rek mooy li am bii ay teelu bi rek lañ doon moom la ñuy doon ba faaw it lépp acteur bi rek leen ñor dara ñëw leen di dut acteur bi noo wéy ci baatu ndigal cay ndax liggéey bi biñ koy tàmbali danoo waxtaan sëñ Alaji Jóob moom sëñ Mbàkke Jaar moom moom la sëñ bi teg ci ba boppu bi kenn suñu fee dox loo xam ni waxtaanu la moom bañ déggoo ci danoo waaxu dem fa moom maak suñ laat moom suñ cer ak suñ saam ñii di doomi suñ Abdourahim ban waaxoo ba àgg fa moom waxtaan ak moom ci mbiri dëkk bi ci jumaa ji ni ko danoo bëggan nu ànd dem ba ci sëñ bi ndax baat bi yow la ko sëñ bi tekki dëkk bi léegi nag nu bëggan jumaa ci Daaru Jóob te bëgg jot ndigal ci sëñ Abdoulaye mi nga xam ni moo fi xalifa sëñ Massamba waaw mu jox nu ndigal nu ànd koog taalibe yi dox ni ñu ko war a doxe loolu lañ bëggal sëñ Alaaji ni ma loolu de mën naa nekk sëñ Saam ni bu nuy dem de saawata bii maa koy taal def ci gaasa nii nu xëyee Tuuba teel dem fi sëñ Abdoulaye toog ak moo bin accès fekk nañ ko fa sax waaye bi ñu gisee koso koso daal di dina wubbi ñu dem ba ci sëj ba mu yóbbu ni ca néegam maag sëñ saam sëñ laat sëñ bi benn accès ba toog ak moom wax ko tànk yi nu tax a jóg ci dëkk bi ngir bëgg liggéey sëñ Tuubaa ak sëñ Masamba rek parce que yéene ànd ak taalibe bi léegi ni sëñ bi dara jubbi dañoo waxtaan ba bëgg nga may nu ndigal ñu liggéey fa juma boo nu ci maye ndiggal loolu daal lañ bëgg mooy suñu tànk yi tey sëñ bi ni nu tànk yi ngeen dox de mosu leen dox tànk yu ma neex sant naa ci looli jox naa ci ndigal bu baax it wante léegi mayit nag dama am kilifa bëgg ngir may ma tuuti ma waxtaan ak sa kilifa bu ma waxtaanee moom. ma jox leen ma ma ma jàpp ñu jàppaleen bis ngir teg xeer wi lu ma wax rek danaa ko seexu naa mi mu wax leen nii daal di fay génne ab barkeelu nii ni barkeelu bii di yéene ko ubbi bañ ma ko fi joxee léegi de ubbi ma ko te sant gu ma leen sant rek moo tax ma ma ma di leen bégale lii daal di koy ubbi corne cornet taloo ci ku ab cornet mu juróomi cornet mu jox na ko ni sant naa leen lool ci seen yoon yi ànd naa ci yéen àndi du rafet nii ni la mi tëdd biñ dikkee nu daal di ànd ak gaa yi takku taalibe yëpp yëpp nuñ ko war a doxee rek ñu doxee ko ba liggéey bi mel nii mu mel tey yéen nag yéen taalibe yi nag ñëpp ameel na leen cant ndax sëñ Tuubaa ngeen na liggéeyal ak sëñ Masamba. léegi sëñ moom dafa day laaj kilifaam. kan mooy kilifaam ak lan moo tax nu nu nu léegi moom ki fi neel sëñ Tuubaa mu jox ko boppam muy sëñ Muntaxaa moom la waxtaanal mu jox ko bis ni ko bu ngeen àggee ci buñ te këstu rajab ga ba àllarba ji ca sës ngeen te xeer yi. ci 1441 ci gàddaay gi. jaar waaw. waay Masaalikul Jinaan waaw mu ngoog ci lañ teg xeeru dër jub waaw waaw léegi léegi ci lañu teg xeer yi waaw xam ne ñoom kon bañ ko ñoom duñu wéy ñoom itam lu ci ndigal ndigal ci nekk suñu kilifa ñun ñëpp waaw teewul mu nangu ni am na ko ko yilif jeex na te ko ko yilif mooy sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi deel sëñ Tuubaa jeex na te noonu la sëñ Masamba ànde woon waaw Seexul Xadim jeex na kon ñoom itam noonu rek foofu la ñu jaar yoon woowu mu ngoog léegi bi mu demee nag mu dem ci sëñ sëñ taxaa waaw mu jox ko ndigal waaw sëñ Muntaxa daal di joxe ndigalu dat yi nga xam ne si ci la ñuy tàmbali texeer moom itam ñu daal di dajale bi aw teg liggéey bi ci seen loxo yow sëñ Alaaji Diouf mm-hmm. ak ji Alaaji Sëñ Mbacke waaw ak sëñ Sam ñoom ñi nga xam ne si ñoom ñoo fi nekk waaye ba mu taan agsi ci yéen yéen bu leen ko joxee mm-hmm. gis ngeen ni liggéey bi mm-hmm. bu am solo la waaye du liggéey bu ndaw déedéet du bu ndaw kon taalibe yi coobam ñoom ñoo war a bokk nag liggéey boobu ci ndigal bi ñëw nag léegi wàcc si ci yéen yéen nag ngeen wàcce liggéey bi nag ci biir taalibe yi ngeen wooyee nag léegi daayatul mubaarak bi nga xam ne sëñ Massam sëñ Massam Diop moo ko jiite waaw nga xam ni moom moo ngànk liggéey bi gën a bari ci liggéeyu sëñ ma sëñ Massam Diop ñoo ko féete ñoo ci féete kaw mm-hmm. ñoom itam ngeen wax leen ko ñu daal di ànd ak takku ànd ak taal bi yëpp tout dikk nag daal di songu liggéey bi waaw mësta taxaw tegee xeer wa waaw ca 1441 ba mm-hmm. ba ñu demee mm. muy liggéey liggéey ba ñu liggéey ci ba mu dem ba 1442 bi mm-hmm. liggéey bi ci weeru mois weeru août bi ci ci ci tubaab bi ci mille ci deux mille vingt. Mm-hmm. ñu gis ni liggéey bi fii. Mm-hmm. Euh, war nañoo gën a gaawal suñu loxo. Mm-hmm. ñu gën a gaawalaa suñu loxo nag ci la ñu wubbee nag liggéey bi. mu dox li mu doxee nga xam dañ caa tegum at nag. liggéey bi nag li nga xam ne moo ko war a na liggéey lépp ci xaalis daal di yem. yem mës a taxaw mu itam mësuñoo taxaw ci. di liggéey liggéey bi. ba bàyyi sëriñ Diop mi nga xam ne ñoom itam ñoo ne ci dëkk bi yéen mhm. ñu teg ko ci seen loxo ñu teg ko ci loxo waaw itam ko taxawu mhm. ndax ñu nekk ay doom ak i rak mhm. ñoom itam ñu sawar ci lool nangul ko lool waaw di ci yendu te mosuñoo am fenn soxla lu liggéey jumaa ji moo ko ñor waaw moo taal biir bi ñu ko déggee amatuñu fenn soxla taxawuñu benn luy tax jumaay jee yekk wallaay dëgg la waaw léegi nag yaa ngi doon wax lu am solo ci histoire dëkk bi eh, loolu Hmm? ah tàbbal dëkk bi de moom maanaam ni fi liñ liñ ci jot a xam déedéet dama lay wax maanaam sëñ sëñ Mat Diop de ak Baye Serigne Diop dañoo bokk na njëriñam sëñ ku baax ki yor leen ñoom ñu bokk fa ne. ba sëñ bi wàccee leen bi mu leen wàccee maanaam sama dégg naa bay ci ni nit wax dañuy léegi bi nga xamee sëñ sëñ Massamba wàcc na liggéey maanaam sëñ Tuubaa daa woo sëñ Mat Jóob Massamba woo bay sëriñ mu ne leen yéen dama bëgg ngeen ñëw dem Daaru Saam ndax seen waajur daa nopp wàcc léegi nag bi mu defee noonu mu boole leen di leen ñaanal bay si ni nim ni mu wax may dégg nee na bi mu nuy ñaanal nee na daa bank baaraamam bii moom bay si bi mu nu ñaanalee ba àggal xam nga kooku bayu léegi nee na bi mu leen ba àggal sëñ moo daal di jóg dem ñëw dër saam bi mu dikkee ñu laaj ah ñu laaj sëñ ma saa euh, euh, sëñ ma Diop ni ko ana sëriñ muy leen ah sëriñ di sëñ bi nu bokk ñaanal man li muy ñaanal xaw ma lu ko fa bàyyi ginnaaw lu ko fa téye bi mu jógee sëñ Mat Jóob jógee ba àggal ba dem nee sëñ sëñ bi ni ko sëriñ yow dama laa yiigu dama laa bàyyigu dama bëgg léegi muudu muy mag dem ci yow nga toog mais lii la ko sëñ Tuubaa wax waaw bay sëriñ toog foofa sëñ Mat Jóob ñëw dër saam lii daal moo mooy li ma xam waaw te it nun daal sant bu baax sant nañ sëñ Tuubaa sant sëñ Masamba sant sëñ Abdourahim sant taalibe yi ndax sëñ bi maanaam mbir mi am na lu ci suñu borom wane loo xam ni moom paggatéef la goo xam ni kenn kenn xamut woon nii lay nii lay demee waaye nag lépp baaxu borom dëkk bi ak gaa yu baax yi fi ne taalibe yi yëpp yëpp sant nañ ñi ci bitim réew ak ñii tout kenn ma kiwut sant gaal matale na sëkk waaw jax na tàkk waaw bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala dee dee barkeb sëñ Tuubaa taalibi sëñ Tuubaa yëpp maa ngi leen di ñaanal ñi jàpp ci jumaay ji ak ñi jàpp ci jumaay ji te yéene woon a jàpp ci jumaay ji sant naa ñëpp yàlla na yàlla jàppale leen fu ngeen bëgg a àgg yàlla leen fi sëñ sëñ Tuubaa eggale barkeb sëñ Tuubaa nangul nañ leen seenu taalibi yéen ndax jumaay jii nii ñu ko def néegub yàlla bii ni ko def nii rek moo moo moo neex sëñ Modou Diouf Massamba mi fi neen te sëñ Modou Diouf mi fi mi fi neen ñëpp la ngànkan waaw mi ngi leen yor ci biir mi ngi leen yor ci biti mi ngi leen di ci mi ngi leen yor ci yéene te inama ahmalu bi niyyati jooju mu wax sëñ Modou mi moom la def kuy heggali mu heggaleel la kuy ngénte mu ngénteel la ñëpp ñëpp sëñ Tuubaa yàlla na nu ko fayal barke sëñ waaw loolu de man laa si doon wax rek waaw nangul lañ leen rek si yéen tali bi yéen waaw baax na. leen nuyu di leen saare man la Baye Serigne Diop tuum sëñ Thierno Diop ak Baye Serigne Diop liggéey bi moom bi mu dikkee bi bi ñu laajee comme fi fi ñu laaj wax nii dañu laaj ndigal ba ñu jox leen ndigal bi ñu leen joxee ndigal ba ba ba si mu joxe ndigal Baye Sàmme ak sëñ Abdourahim ak sëñ Cheikh naa ñooñu suñu ëllëg wax ko ndigal li sëñ bi jox na ko pour ñu léegi taxawal liggéey bi. bi ñu ko defee moom bàyyi saam ak suñu ëllëg ñoo ànd ak ñoom ñu ki suñu laat ñu ñëpp dajee fa booba sax ci leen ma teg ci ma yore liggéey bi nii waaye booba bi bi ñu tàmbalee liggéey bi li ñu jëkk def mooy dañoo wut compte banque boo xam ne si ñeent nit ñoo ko bokk mut commission boo xam ne ab groupe lañ ko def groupe bureau bureau boo xam ne si sëñ Sam mee ci nekk moo nit ak ñaar ñoo ñoo loolu ma bureau bi njëkk a defar jumaa ji ko defaree pour collecter xaalis yi jiilim suñu ceerno moo yoroon mbind mi moom lépp loo xam ne moo daan dugg da ko mbind bi ñu defee noonu ubbi compte bi wut ñi nga ñoo seere liggéey bi ñu mooy mooy commission bi nga xam ne si ñoom ñoo ñoo seetu liggéey bi man moom damaa yokkoon di doxal ci wàllu liggéey diggante maçon yeeg ouvrier yi ni ñuy waaye bi ñu defee loolu ci la nag ci lañ di di laaj dañ ko laaj nag laaj nii rek woote ñu ñi di joxe ku joxe ñu daal di wax ni diw joxe na jiil bind ko ñu koy topp noo di ko topp di ko topp di ci liggéey di ci liggéey par étape ba àgg ci 29 millions bi ñu amee 29 millions yoo nag ci la jumaa ji raase ba àgg ci sooro yi taxaw tàmbali di taxaw bañ kulee jumaa ji pare léegi nag ci leen xool liggéey dafa yéex ci laal dogal nag ñu daal di indi te liggéey lu jiit loolu suñ màkk ba moom mooy jëriñ donga yi dañ ko indi dañ ko indi moo jiite donga yi moom xaalis bi mu daan jëkk di collecté bàyyi doom lay jaar su da dajalee bàyyi doom la koy jox bu bàyyi doom jox suñu eleji mu jox ma ko doon am ay liste tur day bàyyi doom moom dana jox liste bàyyi suñu laaj ma ne mais dawnu ko liste dañuy wax bàyyi doom nangam moo fa jógee rek ñëw mais bu ñëwee man danaa demee bindu loolu jiili bindu ko ñu def ko ci ci compte bi di ci liggéeyee suñu waree suñu waree jël xaalis jël ko bi ñu demee ba nga xam nag ci liggéey bi dafa dafa xaw a dañuy wax ni war na gën a gaaw ci la indi sëñ Fallou ci la mi sëñ Fallou mi ci la ñëwee bi mu ñëwee nag indi benn système bu bu gën a gaaw gaaw a liggéey bi mooy def benn tableau boo xam ne si képp ku ci joxe ci xaalis ci jumaa ji moom moom ngay boo boo boo ko foo ko mën da joxee rek boo ko wakaalee rek dana ko listé noonu la koon toppee xaw dañoo def boobu laaj ni dañu defal débit sëñ Paul bi mu diggee dañu mu defal débit boo xam ne fu mu xam fu mu jëm pour li laaj mën koo laaj ndax mënoo jékki-jékki di laaj loo xaan ne doo xam euh, ñaata la ci leen ma waxee man ma def débit waaye man leen man débit bi mën a defit mooy débit yi xam ne ñoo luur yu mag yi mais am yoo xam ne kenn mënu koo def débit mooy yi xam ne ñu par hasard wala yoo xam ne kenn programme mu duggaat yooyu kenn mënu ko def bi xoole yu mag yëpp muy li nga xam ne mën ko def début ci leen def début muy ay 40 millions 40 millions yi nag ci la suñu fël tàmbalee laaj août boobu ba ba ba euh, ba ba août bëgg parce que waaye avant août dafay taxaw ñaari weer yoo xam ne bi 40 millions mi matee dañoo taxaw ñun pour liggéey liggéey xaalis bi bi ñu liggéey xaalis bi ba liggéey bi ba nga bi jeex na ci leen xool ni la bi jeex na war nañu a waaye 7 millions 700 nangam mille ñu jox ñi ñi ñi mottali ñoo xam ne seen liggéey dañ leen a nattaloon te leneen lekk ko leneen beneen beneen beneen beneen programme lekk ko ndax da ngay defar lii benn day am dépassé yoo programme day ñëw ci beneen leneen lekk ko léegi nag bi nga ko xoolee muy 40 millions mat na waaye dañuy yokk xale bi dañuy war a fay ñii ba pare konnewaat liggéey bi ci la sëñ Fall laasawaat ñu def 15 millions 15 millions yi nag bi ñu ko laajee ba mat ci leen fay ñooñu. mboolem yeneen yi desaat yëpp ci lañ ko def dafa am nag ñoo xam ne dañuy joxe ñoo xam si ban tàmbalee liggéey ba léegi dañuy ay nit la ci ñoo xam si koo xam ne moom bi ñuy tàmbalee fondation bi di joxe moom fu ñu tolloo day joxe ciment ay 10 tonnes boo fi xoolee ay daanaka na ko fi ci ciment ak ak une tonne yi kooku benn benn nit kooku moom dañ à part la na kenn koo xam ne si moom itam biir ci kër gi la bokk moom it joxe noonu la doon joxee suñu bu demee ba nga xam ne dama war a taxaw dañuy saay bu des fois day war a foo xam ne taxaw da fa mu taxaw mais dafay ñett nit mooy tee mu dem benn maçon bi du ma fayu li ma war a fayu xaadim du fayu li ma war a fayu bàyyi doom bu fayee taxaw xaalis mu jël xaalis joxe ñu ko néewaat loolu ma diggante yenn saa yi nga ca avant 40 millions yi noonu dox loolu moo tax mu doon dox te te taxawut léegi nag bi ñu laaj xaalis bi moom depuis 40 millions yi ba ci fi ñu toll nii xaalis bi ñu fiy liggéey moom moo fi nekk tout le temps xaalis baa ngi ci ci ginnaaw maanaam toujours obligé ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo koy taxawal mais du xaalis noonu la ko liggéeyee maanaam lépp noonu ko liggéey nag lépp nag uh, ci xam naa bu demee ba ñuy war a ubbi jumaa ji dana la wan mboolem dossiers yi nga xam ne bépp xaalis boo xam ne dugal na ko ci fépp fu dërëm dugg mi ngay jili stock boobu xaalis boobu maam par étape bu dee fondation ñaat lañ ci def élévation ñaat lañ ci def coulage ñaat lañ ci def bi ñuy defar xubbe ñaat lañ ci def bi ñuy defar sooroor ñaat lañ ci def bi ñuy def karo ñaat lañ jënd ci karo ñaata tonne ciment moo ci dugg ñaata fer moo ci dugg lépp lu ci dugg ci lépp bu ñu paree dana génn nangami ci tonne fer moo ci ciment moo ci dugg nangami tonne fer moo ci dugg nangami kawe suuf moo ci dugg nangami euh, kawe xeer moo ci dugg lépp lu ci dugg bu paree par étape dañ ko manqué manqué defar suñu paree dama xam nangami jumaa ji fi ne ñu ngi ci 94 millions 94 millions ci leen nekk nii loolu noonu noonu loonu doxee ne leen collecté xaalis bi nag ci mboolem ci talibé yi fu ne lay doon jóge di ñëw mais suñu foolu moo ko doon coordonné di ko doxal ñu koy dugal ci compte bi suñu dugalee ci compte bi compte bi noonu la suñu dugalee képp ku dugal bu buñ dugalee ci compte bu buñ koy buñ koy génnewaat buñ koy defaat hmm, maanaam par étape laay laay def man étape par étape maanaam lu ma toll dañ koy dama koy dañ koy wàcc ba mu jeex suñ ko wàcc ba jeex léegi ñu jublaat beneen beneen liggéey su fekkee xaw dafa des baax na fekkee dañu war a dolli dañ dañ dañu dañoo dañoo dañoo am bor ñu wax bor lan am sàngam noonu la ko liggéeyee ba ñu agsi fii bu li des na xam naa après dañu ko gën a leeral demee ba ci kii bi ba ci kanam ba ci ba ci jumaa ji waaw baax na jërëjëf def li ji sax ba ba juróomi at fi ne ba nga ko léegi léegi parce waa dëkk bi am na groupe bu woon bu dara jot ci kanam ñu taxawal poste santé bi man maa ko doon liggéey man maa yoroon liggéey bi ba ñuy liggéey bi eggee wàllum daa dëkk ñu ñoo kon dajale defar ko bañ ba nga xam si équipement kese moo ci des infirmier ak sasam léegi nag bi ñu defere ba àgg si bo ba ba léegi ñi ngi dugal ay demande ci fu ne amoon nañ fi sax benn occasion boo xam ne si sëñ bi moo ko lijjanti woon ci benn ambulance ñaari ambulance yoo xam ne ital leen la waroon jëlee ak ay matériel ñaari ab conteneur la woon pour que ñu indi ko su ko defee boobaa sax dañoo xam ne bu affaire bu ñëwoon dañuy indi dañuy jël benn ambulance bi yóbbu ko Dër Sàmm comme am na équipement moom équipement bi des dër jo benn ambulance bi mais loolu dafa mujj woon Euh, sotti waaye amoon na conteneur boo xam ne si 3 millions lañ ci waroon fay pour ñëw mais loolu mujj woon sotti loolu ba loolu ñuy topp nag am na yu bëri yu dugg même ki defar courant bi nga xam ne moo fi doon dugal courant bi dugal nañ benn demande ndax ñuy def hôpital ci ay hôpital dañ ci yóbbu ay ay ay équipement ak di leen tabaxal loolu yëpp moom dugal nañ benn demande na benn demande boo xam ne si ci ministère de la santé lañ ko dugal kii euh, fas santé kii Darou bi maanaam ma chef bu Darou Moussi moom dem naa ci ñaari yoon dem nañ ko ñoom ah dañoo mag. kër ñu commune ñun commune rurale Darou Mousty la nekk ñu département Kaymer ci la nekk xam nga waaw. kon maanaam commune bi. waaw dafa dafa dafa fi ngeen war a da ngeen dafa dafay bo génne ci budget bi. waaw chaque année. Hmm. budget boo xam day dem ci santé. waaw war na war na cee mën a génne ndem yéen taxaw ngeen seen bopp. waaw tabax ab euh, poste de santé. la ca war ci équipement. Ah. waaw na cee mën a ko dem na fi ay yoon yoon moom moom ñëw fi ba foto ko jël lépp liggéey bi ba ni def équipement bi mooy maire bi fi nekk waaye booba léegi ci topp waaye moom day day waru ndax ñoom maanaam ku la tabaxal ba pare normalement boo ci desee lu équipement kese tey loolu sa bisse am na ko xam nan nga xam loolu xam naa xam naa loolu man am na bisseem am na ci loo xam ne ci santé la dem spécial pour santé la loolu xam naa ko ci ñoom. ba leen nag yéen yéen normalement bu ne la tabaxalee ba ñun war ngeen mën a defar li ci des lépp war nga ko mën a def at mooy danañ ko dig saa bu diggee day génnaat loolu moom topp nañ ko ay yoon yoon loo tax ñu jéem a sax wut feneen ay ay ay ay kii. indi sax waaw waaw loolu loolu moo tax waaw fu mu fu xam naa loo ci moo ci tane wala xëy na am na keneen koo xam ne si tim moom it loolu la euh, jàpp na ni bu fekkoon ni gañe na ko xëy na moom moom moo ci ëpp ni ma ni gisee ni muy doxalee nii. bu fekkee ne ma gagné moom jàpp nañ danañ taxaw ndax bu mu dikkee ci forage danaa la wax kooku li lim ci lim ciy doxee loolu moo ci ne bu dee poste santé daal yooyu loolu la. nga xam daal yéen mooy équipement. ak ak sage-femme bi bi rek infirmier bi ak sage-femme waaw moom la. léegi ci wàllu hydraulique. bi di bii xam nga teen bi dañ ko fi gas 1984. 84 ci loolu bi biñ ko xoolee xam nga day am carte d'identité bi ma ko joxee sama benn exi eh, kii ay ingénieur dañu bi ma la waxee dëkk bi dañu wax numéro teen bi at mi ko gas 1984 la gat profondeur bi ñu nekk 307 mètres ndox mi moom du jeex ne na bi ñu dikkee testé ko ñoom mais testé nañ ko ba wàllu ko ba génne ko ba ba wàllu ko ba génne mais ndox mi dara siiku ci na meloon teen bi amul caméra naan ko def na ci vidéo caméra ba dem ba 270 mètres ci suuf. pour xool ndax tuyau bi am na benn bën-bën wala amu ko mais gisut benn bën-bën bu ci nekk ndax en li ñu liggéey teen yu njëkk bokkut ak teen yi mujj yi teen yu njëkk yi danaa am PVC yu mujj ay PVC mais bii maanaam dañuy wax ni ci bi ko liggéey ñoom matière bi ñu ko liggéey mooy defar puits pétrole ak gas gaz yi loo tax dafa am dafa kii day am cimentation partielle ci ginnaaw nga si buy dugg day ànd ak ciment te weñ bi diamètre ba rek 2 centimètres xam nga loolu taxal lekk ko ba pare cirque ñoom la loolu moo tax muy loolu gaawul yàqu loo tax teen bi dara na meloon la mel parce que biñu paree ñu tubaab bi rek dañ ko tëj neen boobaag léegi ñu ko doog ubbiwaat dara mos ca dugg te ndox mi yaa ngi koy laale ci 40 mètres boo dugalee euh, mètre ba ak 40 mètres dal laal ndox mi apporté jëm suuf lépp ndox la biñ koy pompé fii keroog benn benn waa jafe xëy di pompé benn bis lay benn bis la pompé mu tàmbalee xong avant ngoon jot mi leer bi mu xëyee di pompé waat dafa mujj leer nañ boo laalee ndox mi day tàng xam loolu mooy napp bi jóg na saa boo xasee ndox mi dafa doon sedd boo ko laal mais bu bu nee mi tàng nab bi loolu bu ñu koy def dama xam ma man damay am ñeneen nit ñoo xam ne sama ay nit la ne ay techniciens ay forage ak xeet yooyu lu ci damay dem di ko laaj ñooñu ñoo ñoo may wax ne saa bu defee lii lii mooy lii lii la lii la war a def loolu loolu la laaj saa moo ko laaj ñu wax ma ki kii bi léegi nag bi ñu paree ci loolu am na koo xam ne ci bokk na ci ñi bëgg jël mairie bi moom joxoon na ci million moom 2 millions la joxoon ci yeneen 2 millions mi ngi xaar pour ñu defar forage bi trédo bi pour ñu defe ko ci forage dafa am ñetti entreprise yu yu ñu waxal yoo xam ne si kii dafa am 20 millions kii am 21 millions kii te capacité forage bi nag loolu la maanaam ñii dañu nekk 100 mètres cube ñii nekk 500 mètres bu dee 500 mètres cube bi moom forage am boobu ko seeru ay 6 si millions la waa ji wax léegi nag ci xool xool nag comme capacité li li muy joxe ndax bu bu bu beelee bee leen defar defar wala bu cent bu bi léegi nag ñoom ñi ngi ci diggante loolu ci la nekk nii ci xool bu dee ci 500 mètres bi moom bu dee dëkk bi mënu koo jeex ndax autoroute autoroute bi mu jox 12 13 mètres la 13 mètres mi ngi yóbbu boo euh, xam nga mètre forage bu xësee am 5 mètres jëm kaw benn mètre ba topp ba tegaat rek 2 kilomètres lay sànni 1 kilomètre lay sànni mu ni moom boo ko defee 500 mètres bi mën naa dem romb Fass parce que 13 kilomètres lay yóbbu bu dee kon dëkk bi comme comme am na yoo xam ne tamit boo ko defee mën naa ëpp loolu tax ñu ci la ñuy xool nii ba ci pour forage bi ñu koy doxalee moo tax fan yëpp ci lañ nekk di ko lijjanti waa ji jot ñun ñun bu ci dëkk bi dañuy fay ndox pour pour yore forage bi mooy maintenant ñun suñu ndox bopp la yor bu ñu defee pour ñoom ñoo ñu yore suñu forage ah, waaw waaw nag xam nga forage bi fii nii li fi indi ci ay tuyaux ñun maanaam ñàkkoon a def ab ak ñàkkoon a xaar ci lu bëri waaye li indi ci tuyaux ëpp na forage ndax sëñ tuyaux yu jëkki 12 millions lañ ko jëkk indi jóge dal mus sëñ Saliou dem problème am problème ñu indiwaat ay tuyaux yoo xam ne sëñ Saliou moo ko indi jëlee ko fële wala ay 8 millions mat na ko biñu demee ba amaat benn problème ñu jëlee ji wax sëñ Sidi Mokhtar jëlee ji wax sëñ moo ko jëlee ji waat Fass indiwaat ko fii loolu ay 10 millions la xam nga loolu daanaka 30 millions la li ñu doon defar ci sa mooy ñàkkoonte eh, xool yeewu ak ñàkk gëstu ci teen bi ñu am ba pare loo tax ñu doon xëcc ci ndox di indi rek waaye mënoon na ko bañ am loolu waaw yëpp te ndox bi moo gën a woyof bële waaw moo gën a woyof bële waaw waaw après lii la moom projet bi moo moo fi nekk bu dee ci wàllu dëkk bi dara jóg ci maanaam ci maanaam ñi fi nekk moom association bi appel ñoom ñoo yore maanaam dañuy dajale ci dëkk bi 1000 francs par weer ci leen defar poste santé be te it lépp loo xam ñi ngi koy liggéey ñoom ñoo ko ba ci ko def ci jumaa ji nga gis nii waa Darou Diop ci seen li ñu def rek mën na 10 millions ci li ma am ci li ma yoo xam ñoom ñoo ko ñoo ko génn ci dëkk bi di ko joxe naan lépp luy def moom ma li man dee dañ si fekk seen bopp dañ ciy nekk ñoom loolu loolu ak jàmbaar la ci loolu lu li mat a seeral la ndax ñëpp dañ ci taxaw te loo fi def rek ñoom day day ñëppay ñëppay ñëppay jëf loolu moom loo tax ma ma wax ma waxaale ko ci xam si xam naa ñu neex a la ba ñu jàppale la ñu neex jàppale la loolu ok ah, bisimilah. lan léegi yow nga ci ñi nga jërëjëf kon ñu dellu si ci liggéey bi rek li nga xam ne moom moo moo taxan a jóg tey jii muy ci liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekk muy fii ci Daaru Jóob nekk dëkkub sëñ ma Jóob ma Sàmba nekk fi ak njabootu sëñ ma Sàmba Jóob gépp ma ñëpp fii la nekk ba njabootu sëñ ma Sàmba Jóob gi sëñ ma Jóob bi sax fii lañu ñu ganee àdduna ci dëkk bi kon dëkk bi nekkul dëkk bu rek bu dëkk ordinaire ndax bu ñu xoolee ñu gën a bari sëñ Cheikh Modou Barar lañ gën a xam aw turam ba yaakaar nañu sax bi mu nekkee xalifa mooy xalifab sëñ Masamba jóob te fekk sëñ ma Diop Masamba mooy woy juróom mu ràññiku woon lool ci yoonu murit ñëpp xam ko ci jamono yi sëñ Abdoulaye li mu fi nekk lépp waaye loolu lu ko jiitu sëñ daam ñoom a ngi fi woon doon dox dox boobu ànd ko sëñ fàll waaye bi ñu dikkee itam ba ba mu jógee fi sëñ Thierno Diop mi fi nekk woon ci ñoom liggéey bi ñu ci doon liggéey dañ ko wéel ba ci Cheikh Bass mi fi nekk te yal na fi yàgg te wér di doxal liggéey bi moom itam ca nañ ko doon doxale ànd koog seen xalifa bi nga xam ne nag mooy sëñ Massam sëñ Abdourahim Diop mi fi nekk comme niñ ko waxee woon rek ca départ ba ñoom boo dikkee ci ñoom doo xam kii mooy kii dul kilifa gi ñoom dañuy topp ci moom doxin boobu moom la kër sëñ Massamba Diop di masa doxe waaye sëñ Massamba ñaanoon na ko sëñ Tuubaa muy lu muy def rek na ca nite nekk nite googu feeñ na bu baax baax ci njaboot gi waaye feeñ ci taalibe yi sax euh, loolu mooy li nga xam ne liggéey bi nga xam ne si ni def nañ ko ci fii ñu toll itam euh, ci jumaay ji nga xam ne tey moo gën a nekk li nga xam ne ci li ñuy liggéey mooy li liggéey jumaay ji ba mu yegg te bàyyi sëriñ wax ko te doon ko taxaw Baye sëriñ sëtub sëñ Baye sëñ mu mag lañ ko tudde mooy mooy maamam moom sëñ sëñ sëñ Massamba Diop nekkoon na xalifa jamono ji ñu fiy nekk waaye ñoom ñëpp ci waa njaboot googu ku ciy nekk xalifa rek ci njaboot gi daanaka fii nga yoroo ci Daaru Diop ba nekk xalifa dikk Daaru Saam sëñ Basiru Diop rek ak sëñ Moutala ñoom ñoo fa nekkoon waaye daanaka bu leen weesoo ñi ci des ñëpp fii ci dëkk bii la nekk di fi liggéey ànd ak sëñ Mat ba nekk xalifa ñu yóbbu leen fa loolu ñu nga sëñ Basiru nekkoon na fi kon waaw sëñ Abdou Wahab ñoom ñëpp rek fii la ñu nekk waaw ñoom ñëpp fii lañu nekkoon léegi nag li nga xam ne moom la liggéey nag ki dëkk bi ba mu toll fii tey ñu nag ñu dikk mujj ñëw fekk fi liggéey bi nga xam ne mooy jumaa ji ni ko sëñ Alla ji doon waxee léegi mu tegu ci ndigal daa jot ndax lu jot rek day yomb te itam dafa nekk loo xam ni dafa bokk ci liggéeyu sëñ mat Diop boo xam ne day feeñal liggéeyu sëñ Modou Diop ndax jumaa yi dañuy wax ni jërëjëf sëñ mat Diop rek lañ ko war a tuddee ndax liggéeyam moo tax moo waral loolu tey ji nag bi ñu ñëwee eh, di ko xool ñu gis ni jumaay ji daanaka bàyyi sëriñ li ci des mel na ni bëreetul ñu ngi ci njobax cal li xaalis bi nga xam ne itam moom moo nekk xaalis boo xam ne si ni moom lañ ko liggéeye lool nga laaj ñi ñun dañ cee nekkoon coordinateur di coordonné xaalisu jumaay ji ba mu dikkee ci 29 millions di ko bàyyi sëriñ waxee ci première année bi mu nekk loo xam ne xaw na yeex bi ñuy dikk fekk nañ booba jumaa ji toll ci bor lu toll ci ay ñetti million ñu ne liggéey bi war nañ ko mën a soññee bi ñu dikkee ñu indi stratégie soññee liggéey bi mooy nun taalibe yëpp ñu nekk benn amatul taalib ma Massamba Diop di nekk te doo yëg liggéey bi te danañ ko ànd waaye li ñuy wax jàpp jàppandal gi ci am rek mooy tombeek lii xew-xew jamono ji li wër jàngoro ji wat jumaa yi àdduna si ñu tëj fépp dara doxatul waaye bunt bu tëju rek suñu borom wubbi baneen ñu toondeeg ñu wubbi nag suñu groupe whatsapp yi muy lu am solo damay wax ni whatsapp war nañ ko fonk bu baax a baax ndax dañ ciy defaroo di ci defare waaye dañ ciy yàqoo di ci yàqale yéen lañ yàlla musal ci yàqale yeeg yàqale ci ñun dañ cee defaroo te dañ ci defar te jumaa ji firnde lu ñuy defaroon nañ ci fub taalibe ne ci àdduna si di ko dégg di yónnee xaalis ñu ko ciy def di ko ci jaarale ba def ci fi mu toll bu ñu xoolee tey montant bi nga xam ne si ni moom la ñu nekk tey jii bi jumaay ji yegg 92 millions dem na ci bañ ko tegee ba nga xam ni keroog bi nga xamee li ci mujj dugg jaar ci man nga xam ne mooy li nga xam ne mooy xaalis bi mujj dugg ci jumaay ji 92 millions mat na ko yu teg ay weccet ci liñ ci def ci jumaay ji yëpp kon loolu nekk na loo xam ne. ci whatsapp lañ ko jaarale taalibe yoo ko doon joxe euh, ni ñu ko doon coordonné tam ñëpp nga xam ni groupe bu ñu ko bu ñu bu ñu ci degee tegee soññee rek ñëpp a ciy dugg di ci joxe nga xam ni nit ñi dañuy joxe bitim réew ak biir réew mi fu taalibe yi nekk dégg nañ ko di ci joxe ñu koy coordonné waaye leer na leeraay goo xam ne itam transparence bi ci amoon damay wax ni bu lépp doon doxe nii benn association du am problème gouvernement su am problème ñu doon doxe noonu ndax xaalis bi nga xam ne moom la ñu ci doon lu ci dugg nañ ko bind fii listé ko wax ñi ko joxe versé ko ci compte banque bi bu ñu ko décaissé dugal ko ci ci liggéey bi indi waat yi ba jumaay ji noppi nii tey lépp leer na ñu fu ci dërëm jóge wala dërëm dugg ci ñu mën koo xam loolu li ñu ko may mooy ànd gi nga xam dañ koo àndal ak leeral liggéey bi te taalibe yi jamono bu ñu xamee ne li ñuy soxla ñëpp ñëpp ngi ciy dox te ñu ngi koy dox fi ñu ko war a doxee loo leen laaj ñu jox la ko loolu rek mooy jàppandal gi nga xam ne gannaaw bu suñu borom defee ruxsa euh, jaarale ko baaxu sëñ bi moo tax ñu mën a gaaw a liggéey bi ci benn at collecte nañ ci soixante quelques millions léegi kon ñun foofu lañ ci liggéey ci at mi rek ci biir te booba jàngoro jaa ngi fi ñu ngi tëj kenn tukkeetul kenn duggatul kenn génnatul dara doxatul waaye taalibe yi dafa mel ni keroog lañ gën a mën a joxe bañ tëjagul dara loolu mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ ci dajalee ci biir ci biir liggéey bi jumaa ji léegi moom li ci des moom du du tox xaalis moom ni ouvrier yi ñoo desee kii plâtrier yi finition yi ñoo des ay ay finition dañ finition tax dañ naan ay ay peinture bi ñi ngi ñi ngi def mais daa am ay ay faay yu ci des ci werandaay yi dañu am ay retours yu war a defaraat foofu ak quelque ci biir rek moom euh, ci xubba bi seen doos yi ñu def ci kaw maanaam bulo bi dafa dafa dafa desee dafa defee jàpp comme ni ni mu que ñoom xam naa booy bi bi ñuy liggéey jub màggal gi dañuy liggéey ak ay yàkkamti dama mujj wax leen nii la ngay arrêté bi dem màggal yi parce que ni ngeen di liggéey nii léegi boo lu bari naa ko defaraat parce que lii nii ñu ko nii ñu koy doosi nii baaxul foog ngeen ne màggal ñëwaat pour mën ko defar si parce que yéen da ngeen yàkkamti lii nii du du nii ñaari couleur yi dañuy laalante waruñoo laalante bu ci da war taxaw fa war a taxaw tey gis naa ni couleur yu bëri dañuy laalante fii foog ngeen dem ba ñëwaat bula bi dañ ko def bula boo xam ne boo ko tegee ci weex bi su fekkee bula bi jàpput fa maanaam day faare day day jekk day weex da koy gaaw day gaaw ñëwaat maanaam weex day gaaw génn ci bula bi loolu moo tax man la yéen foog ngeen dem ba magal jàll moo woo si patron leen booy nan dem ba magal jàll parce que dañu liggéey dañu liggéey ak yàkkamti bëgg a dem bëgg léegi bëgg dem loolu boo ko defee doo nga léegi du baax loolu moo waral ñoom kon loolu dañuy eggal avant màggal ñoom ñoom ñoom décroise rectification mu des foofu bi dee ci kërala bi këraleur bi li ko téye mooy moom bu amee quatre jours day defar li fi li fi des lépp ndax moom dafa am ci biir solo jumaa ji la war a defar tax ma sol bi mënu mënu ko def ñaari fan mënu ko ci ëpp moom loolu moo fa desee këraleur loolu rek moo fa desee ak montage kii lamp yi ak ventilateur yi moom électricien yi bi ñu war a monter électricien yi moom ñëw na fi démb pour xool lan la war a jënd ci contact yeeg prise yeeg euh, modulaire yeeg yooyu noonu kooku moom it li fi defar mooy monter lampe lampe yëpp mi ngi ci jumaa ji moom man matériel bi ñu war a monter lépp mi foofu boo demee da nga ko gis xam naa boo gis bu dee ci kii bi hmm, bu dee ci wàllu rajo bi yooyu yëpp ki ko jënd jënd na ko pare suñu station bi jënd na ko pare dafa ñëwagul mais nag Dakar tapis ñi ngi fële ñi ngi tege pentukat bi moo war a ñëw pour pentu gir yi jumaa ji war lépp ak ci biir néeg yi dañu leen war a pentu pentu yooyu moo la waa ji war a ñëw pour defar si ko à part loolu bu xëyee def mooy ak garab yi dafa am benn tool yu suñ bële suñ bàyyi sàmmale xam ne it garab dafa am jaayante garab yi yi ñu war a def ci biir yu jumaa ji moom ay vingt nangam vingt quatre laa ko wax vingt six la war a defar mooy garab yi wër jumaa ji dafa am garab yi war a planté fii yëpp ak ci biir jumaa ji dafa am koko yu ci war a nekk yooyu ay montax daal moo ci def aluminium beet ki koy defar démb. akasa amul xam nga akasa moo amul fii niimaa yi dañ leen a xanaa benn doog fa jege ki ki ñëwoon fii ki ñëwoon fii nee na woon xam nga bi ñu samp yële yi fi jëkk samp dafa wax ne moom yii bu ñu ba màggee benn bi bi dañ ko war a dindi xam na benn benn rek moo ko jege fële. ci jumaa benn garab niimaa bi bu ñu bu ñu planté yi yëpp pare nag bu ñu jàppee da nga dindi yi loolu ki jëkkoon ñëw waxoon na ko même kii ñëw ni spécial ci wàllu loolu la moom dafa wax ñu planté defar ko fii garab yi war a nekk pour mu ñëwee nag doo ko planté moom mooy tali suñu bàyyi sam nii kooku lool bu ñëwee après xam na li mu ci war a wax dañ ko wax ci loolu léegi li ci des yëpp ay montage la ak bi ki koy defar moom it dafa am jumaay ji kii ar kii loolu li koy centré mënu amul Touba Dakar la ko yóbbu pour ñu centré euh, kii bi am ak yi ci kaw dañu dañoo ni mel loo tax amul machine ay machine ñoo koy ron démb wax naa ko moom mun ma yeeg eh, gars yi waaj dafa yóbbu affaire pour ñu roxal ko ko mais aluminium bi xaw a appareil du yàgg mu indi ko ñu monté ko li des parce que ay montage la mais du ab xaalis moom lépp ma demat waaw. asalaamaaleykum wa ñu ngi nii bokk yépp di leen sant ak di leen gërëm bu baax nuyu itam ci turu sëriñ bi di leen sant ak gërëm ndax ndiggéey bi comme ni ngeen ko ni bokk yi waxee rek bi nga xam ni suñu borom dogal na nu daataan ci jëm lenn kilifa yi ànd na dem ba àgg ci moom waxtaan ceeg moom ñaan ko ci ndigal mu joxe ci ndigal kon loolu moom dañ ci sant bu baax di sant nag ci aw turam ci sant teel bi yëpp. laata loolu nag nuy gën a jiital ci cant gi nag bokk yi nga xay ne ñooy doomi dëkk bi nga xam ne ñoom xalaat bi ginnaaw bu yàlla wéyee ci ñoom la njëkk a sosoo ba keneen ku ci mën a tàbbal sa alal ci xalaatum ñooñee ca la mën a sukkandiku ban def loo xay ne ñoom ñëpp mën nañ caa gis seen bopp kon nag doomi dëkk bi loolu la di jiital ci cant yi ak ñaan gi di ci jënt di jiital itam kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekkal sëriñ bi ci dëkk bi ci turu sëriñ El mu sëriñ Mbacke jaara ak sëriñ El Hadji mii nga xam ne ñoom la fi sëriñ bi teg mu bàyyi sëriñ di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay ci liggéey bi ndax lépp mat na ndax bi nga xam ne yàlla dogal nag ànd nañ dem Daaru Saam ci sëriñ bi mu joxe ndigal boobee ban ñëwee comme ni ko bàyyi sëriñ mi waxee rek lan daal di waxtaanaat ak sëriñ El Hadji mu tegaat loxo bi liggéey bi ci loxo yi ay rakkam ak lenn ci ay doomam loolee kon ñu ngi sant ci loolu bu baax a baax ba nañu sore ci loolu itam di doolee sant itam bàyyi Serigne jóob mais nga xamee ni yàlla dogal bi nga xam ni bokk yépp daje nañ foofu liggéey bi teg ko ci loxoom moom itam dañ koy beral ak cantuk boppam cant goo xam ne yaakaar naa ne buñ ko waxee rek ñëpp kenn ku ci ne mën na koo seere ci aw ci ci dox yi na mën na koo seere ci bëtam ndax bi mu yore liggéey bi ba léegi daanaka amul fenn soxla fu muy liggéey bi daana dem ba nga xam ne liggéey bi daana am lu manqué mu daal di sol aw dàllam wuti ndakaaru ci bu ñëwee dina indaale loola loola nag lu jafe la loo xam ne lu ko ci jafee fekk la loolu man dama koy wax ni ko bàyyi sëriñ lii nga def man xam naa ne yombul liggéey boo xam ne am na lu ci manqué nga sol saw dàll wax ak say xarit ak say wëllëre ak ña nga am ci ñoom yaakaar ñu yëkkati loola jox la ko nga ñëw tàmbalaat ko ci liggéey bii kon kenn ku ne xam ne ni boo ci génnee yàlla loola jeex tàkk kon digg yàlla rek rek la ci yàlla tàmbalee ci ci yàlla la tàmbalee yem ci yem ci moom di sant itam mboole mbokk yi ni ma ko waxee léegi ginnaaw bu loolu wi itam ñu sant itam mm, turu mboolem njabootug waa daayiratul mubaarak di ko di ci jiital sëriñ Makka mi nga xamante ni ci yàlla dogal na mooy kilifa donga yi ca loolu ña fi jiitu woon sëriñ Ibrahim tegan ko fi bi sëriñ Ibrahim ñëwee fedd liwaat loola loolu itam nu ngi koy sant ci loolu bu baax ndax bi nga xamee ni comme ni ko Baye Serigne mi waxee doxal nañ liggéey bi ba mu àgg foofu ñu gis liggéey bi xaw naa amug yeex te warees na caa jógewaat ay pexe biñ ko waxtaanee nu daal di koy dugg ci mubaarak bi loolu def na ci liggéey boo xamante ci yàlla rek moo xam payam di sant itam alaji Fallou masjid ndax Fallou masjid moom da am lu bari loo xam ne mooy mën naa koo seere ci moom ndax damaa yàgg dem Amérique di ko fa fekk mu yàgg faa liggéey ay jumaay yàgg faa taxawe ay jumaay ba sunu borom dogal masjid boobu foofee lañ ko takkale garaatu masjid boobu ndax am na fa jumaa jum fa doon taxaw joo xam ne romb na juróomi téeméeri million yoo xam ne moom mii moo ko taxaw liggéey ko ba jox ñooñu ya ñu jox ko garaadu fëllu masjid bu ma mosaan dem New York saa yu mosaan julli ci jumaa ji bu mu génnee lu waay teel teel a génne boo génnee fekk nga ko mu laxa saa yor saako si di dem naa fa bu benn du ñaar fekk ko fa kooku loolu moom moo indi masjid boobu bi loolu amee nag mu lëkkaloo ak sëriñ Màkk ba taxawu liggéey bi taxawaay boo xamante si yàlla rek moo ci xam seenu pay waaye ginnaaw loolu itam nuy sant ndax boo dee laaj ñu lay jox war ngaa sant ñi nga xamee ni saa yu ñu déggee sa baat joxe muy taalibe sëriñ Touba yi di taalibe Sëñ Massamba Diop yi nga xamee ni danoo jox Sëñ Massamba seen lépp. jébbal ko seen bopp jébbal ko siinu njaboot jébbal ko seen alal ak seen lépp loolu moo waral saa yu ñu ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ bi rek jekk nañ ngir jëfe ndigal loola kon nag loola itam ñu ngi leen di sant ci télé bi yi nekk ci biir réew mi di sant télé bi yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci biti réew di sant itam mboolem président mu Mubaarak yi nga xam ni boo ko xoolee mat nañ téeméeri dayira ak fukk ak ñeent yu bootu ci dayiratul Mubaarak yoo xam ne ni ñu ngi ci réew mi ak nekk ci bitim réew saa yoo xamante si sëñ Fallu mi mos naa yëkkati tabla ba rek bu yëkkatee tabla ba rek foofu déere mosaa nekk rek dana teewal si jëmmam kon nag nu ngi sant bépp taalibe boo xamante ni si dugal nga ci sab dërëm wala nga yéene ci dugal sab dërëm wala nga wax ci loo xay ne ba nga ko waxee wax joojee jural na jural na jural na euh, jumaa ji njariñ ci wàllu saahir loole ñoo ñooñu ñëpp nu ngi leen di boole ak cant di ñaan ci barkeb Serigne Touba liggéey bi nga xamante si ma Massamba Diop liggéeyal na ko sëriñ Touba ca keppaar ga ba mu am ngërëmam ba mu fay ko lam ko fay ci biir keppaaram googee ngërëm loolee ak pay googee nu ngi ñaan sëriñ Touba tabbal ci mbooleem njabootug Serigne Massamba Diop ak wëllëri yéeg ñëpp ndax suñu borom dafa dogal Serigne Massamba Diop dafa am xaas ci sëriñ Touba ba tax na mboolem njabootug Serigne Touba gi di teel bi Serigne yi kenn ku ci ne boo déggee njóobeen dégg lu ñuy liggéey rek boo sañoon sa jëf dem ca ndax ñoo leer na leen ni ñoom képp koo xam ne yëkkate nga def ci jo jokk sa kilifa njóobeen leer na leen ni moom sa jëf jooje yegg na kon nag nu ngi sant itam téele bi yeneen yi nga xam ne dañoo bokk ci beneen yoon wi foofu seen jëf def ko ci biir loolu lépp sëriñ bi gis na ko mu ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax di sant itam ci turu sëriñ Alhaaji moom it di ko jottaliwaat leen ak cantam ci nangu gi nga xam ne njaboot gi nangul nan ko bi nga xamee ni sëriñ bi teg na ko ci dëkk bi ndax bi ko sëriñ bi foobee teg ko ci dëkk bi loolee taalibe yi yi ci dëkk bi ak bokk yi nekk ci dëkk bi yëpp nangul ko loolee di nangul ko kilifteef ga ba fëkk fëkkastaluñ ko defuñu ko dara sëriñ Elhadji loolee ma ngi leen ci sant bu baax a baax a baax di ci sant bokk yi di ci sant taalibe yi kon nag loolu rek yaakaar naa ne foofu lan doon yemale suñu kàddu kon daal nu ngi sant di gërëm bi ñaan ci yërmande suñu borom ñii nu tàmbali liggéey bi ci bisimilah nu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin mboolem naal yi nga xamee ne ñu ngi ko fiy naalaat jëme ko ci poste santé bi ak travaux bi yëpp it nu ngi ci tàll loxo ñëpp di ci ñaan ci yërmande suñu borom xam ne lu ci waaye def rek sëñ Massamba Diop nga ko defal di sant itam sëriñ eh, Baara Diop mii nga xëy ne mooy kilifa ak jotaay bii nu nekk di xalifa Baye Serigne Diop mi nga xëy ne moo nekk ñetteelu xalifa Serigne Massamba Diop te waajuram ni ko bokkee waxee rek Serigne Touba yar ko ci loxol boppam ba yeewi ko moo am ngërëmam comme bu fi jëwriñam toogee fii mel na ne kon sëñ Massamba Diop moo toog ci jotaa bi kon nag sëriñ bi nu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ci kanam njaboot gi nun ñëpp nu maase ànd ñaanal sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi tomay ko ak wér tan xam ni ak ñaanam moo jiitu ci lii kàddoo moo jiitu ci lii di ñaanal sëriñ Ibrahima mi nga xëy ni itam moo fi nekk sëriñ Massamba Diop yàlla guddal aw fanam te yokk wéram ak mboolem njabootu sëñ Massamba Diop gépp jasaakumullahu xayral jasaa jërëjëf jërëjëf